ngir maa ngi lay ziar. Babacar Babacar dina fa sérieux waaw maa ngi ziar waa làmb ah. léegi presque làmb moo fi nekk. waa ñu ngi leen di ziar ah yéen xam nga yéen suñuy gaañ ngeen. waaw yéen yemale wuñ ak dara ah. yéen yéen parce que yéen yéen si ñu ngeen bokk. dëgg di contentement tamit. Mhm. di leen may bonus bi. am na ci solo parce que tamit li ñu leen wooyoon fii tey. Mhm. wax dëgg yàlla mooy wax ci cadre. politique bi bi. ak mhm. fi ñu ci toll. mooy fi ñu dëkk. muy Medina fi ngeen ñu fekk nii. ma début carrière fii laa doon toog. waaw bi daa mel ni miin nga ko de. waaw moom mosoon a jógee entraînement. Uh-huh. Euh, aw lu ma ndékkee fii lay toog. Hmm. waaw bàyyi booy taalibe yi romb. ku ci nekk xam nga man ndongo daara laa woon. ku ci romb rek man la mbiskit boo am indi noonu laa bëri woon ay supporteru taalibe parce que ñoom ñëpp dañ ma yàgg jàppale. ñi indi suukar indi suukar. ñi indi mbiskit sobateel bi ñi indi mbiskit indi mystique. soow su affaire ma ponché ko dóor ko naan dem tëdd nelaw. xam nga loolu tey moo lay permettre tey nga gën a mhm. nga xam tey fi nga jógee ak xam nga nga xam ni dara xëyu xëy rek sotti xam nga dem entraîner mhm. moo tax booy génération bu bees bi ba man dama leen wax ni mhm. yen chance bi ngeen am ñun am ko woon yéen ku ci bëri benn combat ñaar ñett siw ñu ne dañu doon bëri ay dix combats xam la parce que benn télévision ma fi nekkoon site amu <laughs> moo tax yéen chance bi ngeen am ñun amuñu ko ñun di nga bëri ay combat spécial dóorante dóorante bay bëgg a dee balaa ngaa bëre grand combat day fekk ngay bëgg a dee. te ñoom ku ci bëre benn combat. am tour parce que site internet yi xam nga. Mhm. yooyu seen chance la. seen chance la mais nag nañu xam ni dara yombul xëy xëy sotti. mun mhm. nga nekk ci mbir mi affaire yi saf sap. métti mhm. trop ñun dañoo dem entraîné bay bëgg a dee. billaay walaay te doo am loo nekkee. doo li ngay nekkee da nga koy taxalee. mais loolu moo lay gën a poussé. parce que boo juddoo fekk sa papa riche sa yaay riche sa waa riche looy duggee ci làmb looy duggee ci sport xanaa da nga ko def par plaisir. dugg kay kër ga di saxaar boo yéexee mu tàkk. <laughs> mooy waral nga takk jaaj yi xam nga. amaana góor gi gi anaanu góor gi imaam la woon. yow nga bàyyi cadre imaam yoon moo newoon fii imaam bi ci koñ bi. góor gi Adama John. yal na ko yàlla yërëm. amiin atañ yàlla teg ko loxo malaakul yërmande. yàlla xara ko àjjana moom ak ay xaritam. ku mel ni imaam Abdou Koña Sall moo dëkk fii benn sama bàpp benn xarit laa ko xame moom ni imaam Abdou Koña Sall. di ko moo nekkoon président daayiratul Kiram mooy turandoo Frasier. Frasier bi di ngay dégg. Ah, sa waa ji Abdou Koña Ndoy la tudd. paa bi léegi waaw mooy sama mooy sama secrétaire général. secrétaire waaw secrétaire ba Fatma. waaw moom moom moom mel ni yàgg sa secrétaire ba bëri ngeen coow de. ah xarit ngeen mais gis naa booy des fois booy di leen tàkkale. seen yenn rakk mbër yi. non loolu doo boo jiitoo xaj boo jiit bu ko olof di waxee. ku xaj mbaw la. Ah. mënut a ñàkk. Uh-huh. loolu moo àddina moo tëddee noonu mais li ci am solo rek mooy moom lañ ko moom lañ ko tuddee. ku mel ni imaam Cheikhou Diop suñu papa yooyu parce que fii tey li taxoon mënul am anarchie dañoo judd fekk suñu ay papa yu am ful la. Mm-hmm. yoo xam ne fu nga fii. Mm-hmm. booy bu fu nekkoon di déconné sax di jël sa yoonu bopp paa ñoo lay convoqué dóor la dóor yu métti. waxuma la non waxuma la loolu. fii tey xale musul am fit. sax di jël sa yoonu bopp ñun ñii loolu moo ñu forger ah parce que dafa amoon ay paa yu am fulla am personnalité yu nekkoon paa yi ay quinze nekk bu nekkoon la paa yoo xam ne billaay wallaay talaay ku mel ni paa Al Lamine Ndiaye paa Assane Ndoye paa paa Ablaye Pouy mhm. paa du jaañ paa yoo xam ne fii amoo fit amuloo fit di di jël sa yoonu bopp ci xale. ci xale paa yi dañu dañ leen respecté woon. Mhm. dañ leen rusoon sax def yenn yi seen kanam. Mhm. paa yooyu nag yàlla na ne paa Lamine Ndiaye. Pa Assane Ndoye Pa Ablaye Pouy Pa Doudou Diagne Pa sama turandoo Ibrahima Ndoye ñi fi nekkoon maam ñoom maam Mbaye Ndoye ak yëpp te yàlla na leen yàlla yërëm ñooñu suñu ay dañu dañu marqué man dañ ma marqué man bi fi nekkatul la penc mi wéet mhm. anarchie yu bari danga koy gis yi am nañu ay booy ñuy def naka sudul noonu ci yeneen quartier yi yëpp dañuy jooy seen mag yooyu mais ñooñu tey ñooñu ñooñu ñooñu ñooñu tàggat ñooñu yar ba nga xam ne tey amuñu fitu def naka sudul noonu quartier nag boo ci juddoo yaroo fi màggee fi ba nga toll ni tey nii. ñu mu forger la. def la li nga doon tey. dafay baax. nga bëgg nga war a fekk nga war a bokk dugal sa loxo. ci développement ba parce que tamit euh, esprit maire. mooy nga bokk fa mooy nga nekk ko mooy nga nekk ci instance dirigeante yi. du lenn lu du vision la. parce que ñun dañuy tukki dañuy. <laughs> waa ji ñu mën a teg chaque année mu mën a teg bilan ne lii ak lii moo fi xew. lii ak lii nit ñi xam. parce que loolu mooy système mairie. mairie mooy mënoo dëkk ci quartier ba te jéemoo xam lenn lu mairie di doxee. loolu dafa baaxul te nag dañoo bëgg bokk ca ña nga xam ne suñu quartier bii di Médina def ñu lu ñu doon. bëgg xam fonctionnement ba. ak ku fi mën a nekk. xam nga loolu moo tax ñu jël suñu suñu suñu mentalité ak suñu xalaat ak suñu doole. fas yéene ci accompagner Cheikh Ahmed Tidiane Ba. parce que vision la. vision la waaw parce que amoon nañ suñu yoonu bopp bu ñu jël. mais bi mu woowee. waxtaan ak ñun teg ñu feuille de route tegal ñu programme am suñu xel dafa doy dal ci loolu jëloon nañ suñu yoon fexe pour def pour bokk ci jongante bi mais tey boo gisee koo xam ne doy na la lim la tegal sa loxo. expliqué la leer na. wóolu nga ko ci loolu mënuloo lu dul di ko accompagner. am na solo mais dinaa dagg foofu balaa may dugg parce que fa fa mais ku mel ni Bamba Fall mooy maire bi te defe naa itam mënut a nekk maire fii nga nekk fii sportif de haut niveau te yéen ñaar amu ngeen ay relation yoo xam ne xëy na mës nga jubli ci bés mu dugal ci loxoom wala ngeen mës sa toog waxtaan defe naa Bamba am même bu fekkee faru ngeen tamit am ngeen benn relation boo xam ne bu am la seen diggante wala loolu dara mun ci dañ mais yàlla sax yàlla dafa bëgg nit ku euh, da ngay mën a jël décision. mooy tey gis na ñaari xale boo doon fekkoon ñuy buuxante sax di nga mën a xool kan nga far yàlla sax dafa far. loolu yàqul ci nit moo xamul euh, nii nit dafa war a am choix ci lépp. maire bi ngay wax muy Bamba Fall. dañu mës a am relation humaine nekk ci ay combat mu taw dugal ci loxoom Cheikh Ba bii. Cheikh Ba bii may wax nii bien avant que muy wax waxu maire yi. combat bu mos am la ci dugal loxo ak yeneen personnalité euh, di nekk Medina ay Cheikh Ahmed Tidiane Seck ay Ibou Diouf ay man Medina aw ma fi noonu wala bu ma fi am yëguma ko parce que aw ma fi sens interdit mais nag seen fa ça va pas euh, ça n'a rien à voir pas dire que ni ça ne pas dire que maire la yàgg na ma jàppale aw ma dama war am problème choix non c'est différent li engagement la ak objectif la choix c'est moom yow lay concerné mm-hmm. xam nga nga ne diw laa gën a laa am ci moom yaakaar ak li mu ma wan ak projet yi mu teg gis naa ci sama bopp nga jàng ma mu doy la nga ànd moom loolu yàqul sa diggante ak ak nit ki dara. dara dëgg choix la. macha allah te nit ne da nga war a am choix nag solo ah, lamb ubbi na ba mu ubbee ba tey gis nga ay journée jàll na fi rent Dakar ñoo ko ubbi. làmb ja neex fees lool Assane Ndiaye ñëw tëj Iba Mar Diop bërki dem Fallou Ndiaye ñëw arène nationale tamit daf fa lam fa def mu nekk ay journée yoo xam ne combat yi ñuy boole ay combat xale la combat yu neex saison bi ni mu ubbee noo ko gisee en tant que président des leaders en activité. non di ko rafetlu di am contentement parce que lamb sàjji na. gis nañ journée yi fii xew yëpp. Mhm. maa ngi félicité suma rak booy euh, Ada Fass. Hmm, Ada Ada bërki démb rek maa ngi ngi seen combat yàlla may ko ci ndam ma koy ñaanal yàlla des ci kanamam yàlla gën a mu gën a góorgóorlu rek xam ni commencé gul dara li nekk ci kanam moo gën a jafe fuuf. xam nga di ko félicité di félicité waa faas yëpp. waaw journée yi am dañ koy rafetlu làmb mi ngi avancé mais pour mu dellu fa mu nekkoon du yomb. waaw làmb mais aada moom aada moom dinaa taxaw moom ci moom tuuti parce que doomu Fass la juddoo Fass. tey Fass ku ne xam na ne ku tudd làmb ne Fass ndax mbay gi yal na ko yàlla yërëm. tafaagee ba ci yow. yaa ngi dégg tey aada ñëw ñu gisati Fass ni mu génneti ci moom muy xale bu am talent muy doomu Fass. Ah, kooku tey defe naa ne euh, ban taxawaay ngeen war a am ci moom donte bokk ngeen même lieu décrit mais yéen a bokk dëkk bi muy Fass taxawaay bi ban la war doom ak conseil yi lu ngeen ko war a digal. mooy jàppale ko en tant que mag en tant ko ko gën ko xam làmb dund ci ay bés yoo xam ne gën ko ci am expérience parce que ki la jiitu ci néeg bu lëndëm moo la fi ngay jaar. lépp loo xam ne war nañ ko ko yokk ci xam-xam bu ñu amee possibilité bi rek dañ ko ko dañ ko dañ ko ko dañ ko ko yokk parce que tamit mbër fi mu toll nii tolloon nañ fa ci ay jamono fi mu débutant nekk débutant mhm. te ñoom nee naa chance bi ñu am nii Euh, ñun bu ñu tolloo fii bëri nañ ay combat yu ëpp ay combat am te bëri nañu grand combat. <laughs> Ah, euh, yu metti metti metti te kenn xamuñu woon. <laughs> moo tax ñoom chance la benn combat ñaar xam nga boobu Fatma mi ngi ci maa di touché xam nga. <laughs> moo tax loolu waaw boobu Lamine mu nga dëkk ba xam nga mais li am importance bay baa mu waay boobu tey ñoom chance bi ñu am ñun ko woon. moo tax tey dañ ci war a profité. Uh-huh. ci succès bi ñuy am bëri ñaari ay combat quelques combat rek. Mm-hmm. tur bi naaw. Mm-hmm. xam nga macha allah seen chance la. Mm-hmm. mais tamit dañuy gën a dañ leen gën a ñaax rek. xam nga xam ni Fass moom mën na créer yeneen écurie sax yu dul Fass Benno rek. waaw parce que mooy mooy équipe mooy mooy mooy mooy. mooy écrit bu riche rek moo mën a génne ay yeneen produit Fass tey bu nekkoon mbër bu fa jugee. Uh-huh. Euh, nekk wax ni wax def benn tur écrit na Fass. waaw kon làmb ji ay Fass ngay dégg. parce que làmb pour cent ay produit Fass la. moo tax loolu yàqul dara. mais encourage suñu rakk la. te ñu koy euh, waa Ada ñu koy félicité di ko encouragé ah. Uh-huh. di ko wax na gën a góorgóorlu rek. Uh-huh. ñun astuce yi nga xam ne mi ngi war nañ ko jëlee ci ci ñun. Uh-huh. te newul ci moom war ko def ci moom. saa yu ñu amee occasion. dañ ko yokk ci moom. ndax bis bu taxawee ci làmb ji xam ni ay loxo ay loxo dugg na ci dugg na ci moom waaw. Ah. waaw Gris euh, Gris ñu ngi lay nuyuwaat di la jaar. waaw mais ma lay nuyu ma frère. di jox sa wàccuwaay bu baax a baax. waaw damay ñëw rek si li nga xamante ne moo fi jot jaar. yow mbër nga gis nga temps yi bombardier dem na jongante ji mu am na mu demee coow li bëri lool yow mbër nga gis nga Siteu mi ngi ci Reug Reug mi ngi ci Ama ba Ama si signé na encore léegi yooyu lañ risque ñoo si nekk lan ngay digal mbër yi yow déjà est-ce que am nga. pouvoir dem bokk ci wala da ngay mbër yi ñu toog Sénégal bëri. non man man mi sax fan yi sax ma signé fan yi sax dinaa signé. waaw ah ah, fii maa ngi signé sama waa ji yi dinaa signé. man ah. mi bu jotee rek di ngeen ko def parce que tey làmb MMA yàqulul mbër dara. te nag euh, Bombardier suma frère suma porte parole maa ngi koy euh, félicité di ko encouragé. parce que Bamba Bamba Dièye c'est un combattant c'est un gagneur tey nit ñi ñooy wax nii rek mais un gagneur bu pertee xam na ni xam na ni tey dafa war a perte comme si dafay ba ma Dièye ñaata nit la gagné ci MMA bi kon tey dafa war a perte combat ñu def ko débat mais faut arrêter un di gagné à chaque fois ñu gagné ko mu nekk war a nekk débat mën na nekk débat ci ku nekkul sportif mais Bombardier bi ma xam Bombardier perte roi des arènes nekkoon ko perte waat ko dem jëliwaat ko non kon kooku loolu jaaxalu ko nit ñay wax te MMA kenn tëbul kenn tëbul rek un sportif ñëw ne MMA du du looy jàng MMA c'est des différents sports nga ñëw ñoo moom lañu ñu cumuler mooy kii boxeur la doon def mu jékki jekki bàyyi boxe ñëw ci MMA kii karatéka kii ki kii jotsu kii judo kii gréco-romaine kii mbëru làmb yooyu kenn aayu ci kenn mënu ko dajal ñii da ngay aay ci loxo ñii ñu jaay aay ci tànk ñii ay ci xam nga ku ci nekk ak li mën am na ñoo xam ne am na ci ñoo xam ne mënuñu dara mais doole la am nga jàngal leen dara ñu am benn coup bu baax ñëw nekk ci champion. mais tey dama ci encouragé mbër bu toll ci ndaw làmb rek boo bëree tey balaa ngaa bëree yàlla xam làmb mënul yor kenn. parce que làmb ji tey pour mu mel ni mu waroon mel il faut mu nekk ay championna mbër yi di bëre vingt quatre heures sur vingt parce que toog ci benn at di bëre benn komba tey mënul yor mbër. mbër il faut nga war a dem def beneen sport bu lay may xaalis le temps passe. loolu laay digal bépp mbër li gars yi di wax nii dégg naa ku ne di wax parce que tey Sénégal moom Sénégal lu xew ku ci nekk di ci dugal sa grain de mbër yi mbër yëpp laay wax ku ci am opportunité dem MMA MMA ñi koy def gënuñu ñu dëgër gënuñu mbër rek ko war a def parce que mbër di am astuce mën a dóor mën a bëre. comprendre nga mbër da ngay complet kan si waaw bëri bi est-ce que yéen leen ko dàq non non am na si ñoo xam ne ay gréco lañ ak gréco mel lañuy def rëg-rëg combat yu mu gagné ñëpp presque lan la utiliser lu dul bëre mais am na ci jafe-jafe combat am bi non lu ah mais dama da nga daw waaw nit ki da nga a di gagné chaque jour non des nga daje koo xam ne dafa mën bëre comme yow mais dama dama la chance mbër rek dama na la mbër rek moo war a def MMA. Ah. man li ma laaj mooy gis nañ ni euh, sa combat le premier janvier la incha allah. sa diggante premier euh, ah. <laughs> mois de. di bëri xaw ah, sa combat juillet la ndax fan yi ñi ngi doon gis euh, Balla mi ngi France ñu koy nuyuwaale yow ñu gis ni ñi ngi dégg ñu ne yow tamit da ngay préparé. pour dem foofu. Lamine àggal na question. da ngay pare pour Balla nga INSEPS da ngay a dem États-Unis. états ku wax loolu man kay man wax loolu. yow wax loolu. man ma benn Fatma Jame xam nga ne du la sosal. waaw man de du sosal mais mën naa dégg dara rek mën na ma amee. non man fan laa ko waxee. Ah, man ngay wax. mais sunu lamb daal la ñu jëlee. mosuma Amérique benn mais yow waajoo dem États-Unis yow. non non. combat bi fi nga koy préparé. allah. man li ma dese ci carrière moom du ma génn fii moom. Balla Gaye de jarul la dem États-Unis yow. ak fi ngeen jaaroon bu njëkk. combat yi gën a garaaw man bi may bëre Balla dew ma de préparé woon. mais est la nga ca préparé. de. waay. mais sa première phase entraînement sa Espagne nga ko ak yeneen yu ñëw mais dégg naa da mais Balla Gaye de yow INSEP ba nga mu nekk di liggéey. li ngay wax yow sama yoon newul ci loolu mais dama lépp yaa am na leneen looy waaj si ñëwaat beneen combat ak benn mbër. non loolu yëgu ma ko. sa diggante ak Ama dañ koy dox daa am promoteur ko. yëgu ma ko de. giri ñun lañ nekk yow itam nag. <laughs> est-ce que encaisse soo ama ba pal ba pal ba pare wax te noppi. promoteur kan lay jox xaalisam ba pare du la signaler ay kayit. amul mbër mu toll ni yow. du père Gaston ngi ni jox la xaalis. nangu wax. yor na wax kay macha allah. nangu wax mooy la. giri yor nga giri ama jox nañ la xaalisu ama. barki Cheikhou Tidiane bu ñu ne xam na lu baax li wax. ndax galas mooy sa interlocuteur. barki Cheikhou Tidiane bu ñu ma ko joxoon fii la ngay toog yëg ko loolu du ay pro par promoteur mooy yëkkati xaalis jox la te du la signaloo ay kayit. toog woo promoteur yi ñoo gën a yàkkamti loolu mbëri promoteur bu lay jox xaalis. non day woo proche bi yëpp nga signé mën a diw jox naa xaalis. contacté wul pour ama. non non dañ dañ dañ nañ ci wax ay temps yaa yaa ay avant bien avant bien avant connu bi daan nañ ci wax ba avant ba sori woon ci trop mais depuis lors aw ma ci benn kii depuis y' a six mois et quelques. mais am na lu ma la bëgg a laaj. Mhm. muy sa frère. bëri ngeen deux fois. muy Modou Lo fan yi dégg coow li ko topp ci problème mu ay wàllum ibaadoog jàppal bàyyil. mu mel ni affaire dañ ko def débat ba mu. sax boo demee ci presse bi fay gis ay wax yoo xam ne sax mën na ah, ñàkk. ci diine loo xam ne ñoo bokk asadu an laa ilaaha illallah wa asadu anna muhammadan rasulullah. déedéet du suñu si bu ko jiñ suñu si. bàyyi li may wax waaye bàyyi. Ah, noo ko gisee loolu waaw noo gisee mbir moom waaw dinaa ci danaa leen ko yéen parce que xam nga lan la. barke xalifa Mal bis bu dëkk bi di yëngu. yéen day ngeen ci am part responsable bu rëy. yàlla bu jógee ci ñun. waaw dama dama ne la déglu ma parce que tey. no damay généraliser du parce que xam nga tey. am na ay débat yoo xam ne mënoo leen ci nekk di ci yëy di ci yàbbi parce que tey ñun dëkk bi Sénégal xam lu ñuy jooy ay jikko yu baaxul waaye borom xam-xam Sénégal ko jaay xam-xam ba yegg si fii di nga toog xaar. fii foo mënti jóge ci àddina laa la wax boo fi jaay xam-xam boo ñëwee da ngay toog <laughs> parce que fii Sénégal gi nga xam ne école Seydil Hadj Malick mi ngi fi ak ak école Mam Borom Touba ah Cheikh Abdou Khader Jeylaani Baye Laay Maam li Limaamu ak yeneen mag Cheikh Umar futu waa kër ji Baye ñooñu tey am na si ñoo xam ne mosuñoo génn Sénégal te bu ñu toog ak naa naar yi ñu xam ne yaakaar ne ñooñu ëpp xam-xam bu ñu toogee ñoom dañuy xaar kon Sénégal ñun jooyuñu. borom xam-xam mais dañuy jooy ay jikko parce que actuellement ne jikko yàqu na yàqu goo xam ne parce que tey da ngay gis ay ñun tey ñun ñun ñun ñun ñun jullit yi parce que al muslim aqul muslim jullit jullit mbokkam te yàlla ko ci alxuraan ne laa ta baaxadu wala ta xaasadu wala ta daabaru wa kunu ibadallahi axwaanan axwaanan mooy ay mbokk la ñun ñëpp wala yaxillu li muslim an yaxjura axaawu fawqa salaasati ayaamin maanaam tey yonent bi moo a laata baaxadu bu leen di bañante ta xaasa xaasadu bu leen di iñaanante ñan lay waxal jullit ta baaxa du laata laata baaxa du bu leen di bañante walaata xaasadu bu leen di walaata daabur bu leen di tongoo mu ne wakkunu nekk ngeen ibadallahi di ay jaamuwaay yàlla axwaanan di ay mbokk mu ne walaa yaxillu warul li muslim ci jullit an yaxruja muy tongoo wala muy sikki sàkk wala muy buuxante axaawu ak mbokkam foo ko salaasati aayamin lu weesu ñetti fan te léegi ñun ñooy werante suñu biir di sànnante ay xeer di yàqante kii maa bu bëgg xam-xam kii maa lii kii di barki dem Modou Lo fee dañ ko invité fu ñu ko invité Modou ci site yi sax war nañ ko woo mu wuyu si leen ñu bokk sax tarixa ñu bokk diine ji ñu bëgg a tekk nag gars yi nekk ci TikTok yi yéen site internet yi ngeen am ci part de responsabilité bu rëy dem coppati Pata Ndiaye del dem Dame Fall dem Ousmane di di jaxas non loolu am na loo xam ne barki Cheikhou Tidiane et l' am na ci responsabilité parce que werante ñun jullit ñi war ñu werante waruñu werante ci bu ñu xam ne ñu war a dañu war di waar nit ñi mais waruñ ku ci nekk parce que fii xam-xam lamu fi barke Cheikhou Tidiane xam-xam. question xam-xam non bàyyi noppil da ngay déglu da xaaral da xaaral maanaam tey dafa am importance. parce que dafa am non parce que tey da ngeen am mënoo leen ci bañ a am part responsable parce que xamul tax mais wax ba mu bàyyi ba di nga déglu. parce que takk tàkk kenn du ci sot kenn du ci sànn essence am na loo xam ne boo leen ko bëggoon mu fay ci ay wax day jeex parce que yéen vous êtes trop organisé est que tey am na loo xam ne tey tey bi ngeen di ñëw fii dañ ko déggoo yéen ñëpp ngeen ñëw yu mel nii nga xam ne tey werante ci diine ji ñii di sànni xeer ñun soxlawuñu loolu tey na na serait-ce tey ngeen ngeen dëgg ci seen tànk dañ ci am dañ ci am part de responsabilité de bul yaakaar li may wax nii tey li may wax nii mën nga koo bañ nii parce que ñu jàkkaarloo télé mais yaa gën a xam li may wax. parce que tey dafa am loo xam ne boo leen ci bëggee dëgg seen tànk nii kenn doot ci waxati kenn doot ci waxati mais tey suba nga rocceeku dem seetu paate diw dégg diw lu mu wax. diw wax ni nga dem nii bu ko defee gaa yi di jël tiktok yi di ci dagg leen neex di dem bu ko defee ku ko gis xolam jóg ñii di waxante di wax ñun soxlawuñu loolu ñun Sénégal dañu bëgg Sénégalu jàmm te jàmm nag jàmm moo gën lépp ci àddina waroon noo werante ñun diine ji parce que ashhadu an laa ilaha illallah wa anna muhammad lañ wax ñun tey suñu kilifa yi ay branche lañ ci diine ji muy Seydil Hadj Malick muy maam borom Touba ñooñu tey ñooñu barki Cheikhou Tidiane bu nekkoon ñoom biir Sénégal gii ñun ñëpp genn wàll suñu maam yi ay la ñuy doon <laughs> commençant man. léegi léegi Fatma ñu léegi léegi ñu jeexal waaw léegi léegi Seydil maam borom Touba. maam Limaamu maam Laay gis nga bu nekkoon ñoom ak Baye ñas ak Cheikh Abdou Khader Jilani gis nga bu ñu nekkul woon Cheikh Omar Fouti bu ñu nekkul ñooñu ñun suñu maam parce que l'islam ñoom ñoo ko fi dugal. ñoom ñoo setal ba mu set bu bu nekkul ñooñu ba léegi gars yi genn wàll ñu ngi naan dur ba léegi kon nag ñooñu dañ leen. nañ leen jox nañ leen jox xorma. nañ leen jox xorma xam ni xam ni ñooñu dañu béy seen waar fi bu nekkul ñoom day ñaaw. kon ba ñun ñun tey ñun Sénégal suñu mag yooyu nañ leen téye xam ni liñ def fii bu ne woon ñoom barki Cheikh Tidiane parce que li gën a jafe ci dans les autres pays africains bu ñu xeexul ci diine diggante musulman chrétien ñuy xeex ci diggante xeet. xeet waaw yàlla nag musal nañu ci loolu. yàlla na gën a sax te nag ko sàmm. Mm-hmm. loolu yàlla dina la jox loo xam ne xamuloo ko. Mm-hmm. dama ci yenn dëkk yi bu ñu du ñu ci ay waaso ñun nag ay kal lañ di tooñante. Mm-hmm. xam nga dafa neex tukulóor dañuy di tooñante mais yeneen dëkk yi du ñu laalee. yàlla musal ñu ci loolu ñu dem ci xeet ñu dem ci tarixa tarixa yi benn la lañu. musulman et chrétien c'est des frères. jëkk lépp ci àddina. mais loolu nag bu ñu ko yàq. buñ ko yàq ci ay détails ñun jullit yi ñu nag war a nekk di werante ci affaire diw ibaadu la diw lii ibaadu ibaadul ibaadullah jaamu yàlla bi. Hmm. ay détails la. yooyu waruñ ci nekk sax di débat di léegi ñu léegi jeexal ko Fatma foo koy jeexalee. foo koy jeexalee mooy yow yaay président des lutteurs en activité ñu gis ni trois asso des lutteurs waaw ba léegi waa du Sénégal ah. euh, ñu gis ni trois associations juddu na muy yéen ak booy yi nga xam te ni fan yi ñoom ñoo fi nekkoon mooy ku ci ay mel ni ay ñoom mobile de ay ñoom kona mu am yeneen ñoo xam ni ñoom ñoo judduwaat ku ci mel ni ay ñoom alliance Balde ak ñooñu noonu mais en tant que yow tey gis nañ fi tey li li làmb tey liñ doon nëbb niñ ko mën a waxee ndax gis nañ yow tey fédérateur la c'est li ñu wone te loolu lañ gis ndax tey ci une première fois boog man li ma fekkee ma gis ni mbër boo xam te ne taxaw ne dafay déposer maire maa ngi koy mës a gis honnêtement peut-être nag mën naa am nag mu am avant samay jamono waaw waaw mu nekk acte boo xam te ni ñëpp a ko rafetlu ñun ñii appuyé wu ci te yow nga gis ni tey lii nii sa mbokku mbër yëpp rafetlu ci te est-ce que tey en tant que Gris Bordeaux tey trois associations yi nii yan jéego nga ci euh, bëgg kii ndax booy nee nañ bëgg nañoo waxtaan ak yow mais amaguñu fu ñuy jaar te gis nañ làmb instant bi sàjj na te kon li nga wax rek instant bi ñun ñëpp ñoo war a defar mu doon benn est-ce que tey Gris Bordeaux pare na pour uuf ay rakkam dajaleen mu nekk benn association non ñun mosuñu exclure kenn non ñu am na suñu bëri yoo xam te suñu lañ bokkoon ah loolu c'est pas un problème fédérateur. mooy te man nekkoon association bu may yor boppu association dama fekk mu nekk association en activité. association des lutteurs en activité bi ma nekkee ci boppu par exemple laa dindi en activité def ko association nationale des lutteurs du Sénégal. ça veut dire que association bi ñi nekk ñu ci ëpp bëreetuñu parce que dama bëgg ñëpp gis seen bopp. dama bëgg ñëpp gis seen bopp ñu bëri pourquoi boo bëree bokkutoo ci en activité.